sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullah ci ndigalul sëriñ mustafa moom sëriñ Cheikh président wu bi ak kilifa yi fi toog yépp ak bokk yi ñuy fas yéene yëkkati ay kàddu yu gàtt jëmale ko ci njaboot gi fi teew yépp mu doon ay kàddu yu cant ak ay kàddu yu soññe sëriñ bi wax ne ginnaaw bi mu sante kilifaam di sëriñ Abdourahman mi kilifa gi kër kilifa kër sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké di sant kilifaam sëriñ Cheikh Madina te buñ ko tuddee rek mel ne tudd nañ njabootu Daaru gépp nee mi ngi nuyu nuyoo bu tedd bu ànd ak war ma jëm war a àndal yëpp jëmale ko sëriñ Ahmadou Maxtaar ak ay ziyaare ngir bis bii nga xam ne tey moom la yàlla def mu jiite ko ca jiiteel ko xalif général des mourides di sëriñ Muntaxa mu sëriñ Mouhamadul Bachir ndax kenn nattable tut ne guddi gi guddik sëriñ Tuba kon ku ko taxawu ak ku ci jàpp sëriñ Tuba ngay liggéeyal kon lu ñu ciy liggéey kiñ fi bokkal nekkandi ca yilif murid ji ci turu sëriñ tubaa moom lañ koy defar kon sëriñ Moustapha mu wax ne mi ngi leen di siyaare bu baax di leen ñaanal ñu yàgg taxawu yoon wi ci yàgg taxawu njaboot gi waaye di leen jébbal liggéey bi di wax ne am na mbégte mu rëy rëy rëy rëy yaakaaram it yokku na bu baax aw fi tamit gën naa dëgër ci lii ñu ko dénk ndax xam na ni yéen yéenay fédération yéen yéen a tax Serigne Cheikh doon taxawal lii muy taxawal seeni bàyyi ci nekkoon ak seeni maam tey jii ku ñëw fekk si leen ci dafa leen di jàppale waaye mu mel ne li gën a rafetal njortam mooy ku mujj a ñëw day mel ne moo ëpp pas-pas. moo gën a xam li sëñ bi jublub sëñ bi te moo gën a xam la ciy njariñ jëme ci askan wi mu jaral ko lu rëy a rëy ndax lii nga fi wax léegi ne ay jafe-jafe la yoo xam ne mbokk yi jànkoonte nañ ko ci liggéey bii ñu doon liggéey waaye seenug jaayante egg ci ne lu leen ca mën a fekk jaral na leen ñooñu tey ku leen laajoon seen bakkan ngir yàlla ñu joxe ko te nit ki mënut a weesu loolu loolu nag yonent fii jaarun yépp ñi leen nanguloon amuñoon lu ëpp loolu ci ñoom nangoo joxe seen bopp nangoo joxe seen alal nangoo joxe seen deret ca mel na ni noonu ngeen ànde woon ak sëñ bi waaye mel na ni génération bu ñëw bu mujj ñëw rek gën a mokkal bind bi gën koo téye mu wax ne mi ngi leen ci ñeewante bu baax nag di leen xamal nii nag yëg nañ ko njaboot gépp yëg nañ ko lu ñu bu ñu sañoon it mu gën fee woyof waaye nag nit day mu ne su koo xam ci lu ay jafe-jafe ci ay diggante rek lañuy xàmmee nit ñi ndax nit koo xam ne boo àndeek moom bu tàngee mu rocc ko wala nit koo xam ne boo àndeek moom su ngeen réeree mu toog wala nit koo xam ne bu ngeen àndee suñ leen xoxotalee mu dem defe naa ñooñu taxul ñuy wax àndandoo mais àndandoo dëgg yaa ngi koy xam ci ay jafe-jafe dëgg yaa ngi koy xam ci ak lëndëm bu bët setegut kenn ku nekk di dute di xalaat. ndax noonu la ak du ni wala foofu la wala du fi nga mën a taxaw bëccëgu ndara kam ne fii la mën a taxaw ci kanamu ñëpp ne nii la ca loola nga sàmm ko muy sa kàddu mu jaral la lu ne kooku moo mat àndandoo kon sëriñ bi nee na moom wóor na ni ku mat ngeen ay àndandoo sëkk ci liggéey bi yàlla bi mu wax ne mu ngi leen di dénk ak fàttali lii booleele ci sëriñ bi jublu ca xam na ni booloo ci lislaam lu ko gën a rëy amut waaye nag lu ko gën a jafe it amut ndax ku fi jaar ku ne moo ma sa doon sa yitte ca danga cee ndekk ba matal rekk dem bàyyi feeg ñi fi des kon xam nañ ni du lu yomb mu mel nag ne la koy tax a jafe it seytaane rekk la waaye lay tax mu am lépp yàlla yembal na ko ci ñun seytaane nag mooy dox suñu diggante ak lu bari sëriñ bi wax ne mi ngi leen di dénk ngeen xam seen bopp ndax yéen dangeen a bokk ci ñiy defar da ngeen a bokk ci ay kenooy lislaam ngeen bokk ci ñiy leeral bokk ci ñi nga xam ne bu ëllëgee bu lépp taxawee des leen di joxoñ ca loolu ñun wóor nañu ne yoon wii ñu jaar buñ ko wàccul bu ëllëgee ñu ñu joxoñ lañuy doon ñu sëriñ bi joxoñ di boole ci ñoñom lañuy doon kon nag loolu ku ko yàlla jagleel dangay xam sa bopp. na leen leer ne ñu ngi koy wax fii ci penc mi ñun ñii yàlla def ñu ànd ak yéen duñ leen mukk jiital bàyyi leen duñ des ginnaawum mukkit ci seen yitte. waaye duñ dem mukkit bàyyi leen fu ngeen mën a jëm ñoo ñoo ñoo yéen koy ànd bu tàngee danañ bokk tàngoor wi bu seddee danañ bokk sedd loolu ku mu doy nag dara wóor laa doy waaye ngeen xam ne àdduna xam-xam ak xel moo koy lijjanti waaye jaxasoo ak biijoo xuloo du lijjanti àdduna wut jàmm nag taxut ñàkk fulla wut jàmm bëgg jàmm taxutu ñàkk fayda waaye ni ngeen xam ne ñi ngeen àndal man nañoo lijjanti lu fi mat a lijjanti te lu fi mat a lijjanti temps la laaj rek waaye des na ko lijjanti dana la leer incha allah kon ñu bëgg ñëpp ànd ak dal te jëfandikoo seen xel ci ànd akub yar ca xam ne kuy wut yàlla day moytu seytaane loolu daal sëñ bi waxoon ci gàttal ne dañ leen ko dénk te ngeen xam na nag cant gi ak ngërëm li moom am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax yëg gi rek dañoo doy sëkk yëg gi ngeen xam ne xam nañ ni yëg ngeen lii ngeen di def xam gi ñu xam ne xam ngeen li ngeen di def lan la ak fu mu leen jëmalee ak yitte ji ngeen ko jox ak lim leen jaral loolu day noonu sëkk doy na sëkkit nag ngir mën a dem mën a egg fa njëm waaye nag ngeen xam ne a ah, liggéey bi day sëñ bi sëñ bi noonu la ma ko waxee ne ma ne leen liggéey bi idéal la idéal nag buñ ko mënee wax ci wolof mooy bëgg-bëgg bu leer ci xel bu tënku ci xam-xam waaye bu sori lool boo xam ne ay génération yu baree bari ñoo koy liggéey kenn ku néew nag kenn ku ñëw ak birig ba nga cay teg waaye ku fi ku mujj ñëwit xam ne ñi fi jaaroon bàyyi nañ fi lu dëgër loo xam ne ku ñëw mën caa teg dara loolu mooy idéal ca lii fekku leen ko woon fii dangeen fekkoon ñu tax ay nit taxawaloon ko ngeen ñëw eggale ko fii mu egg ñu ngi ñaan yàlla boo ëllëgee seeni suñuy doom ak suñuy sët ñëw eggale ko fuñ koy fu fuñ foog yow toon kon loolu nag koo boo ci dox danga nga ci doxe ak dal doxe ci tey ca xam nit ne yoon wi moom ab yar mooy maye lépp xam-xam loo ko bari la bari ci àndukub yarit ay jafe-jafe la lay jural waaye nag bu fekkente ne am nga ab yar ci dégg ndigal loo yóotu da nga ko jot ci danga nga ko jote ci anam na nga ko war a jote mu sedd guy kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di naan yàlla nag ñi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe ci mbir mi waral ko yàlla na yàlla seral seen xol guy bañ fàtte lépp ñu ngi ñaan yàlla yit ñëpp képp ku fi teew ngir yàlla yitte joo fi indi yàlla na ko yàlla faja jàngoro joo fi andi yàlla ko yàlla saafara ñàqare lu fi waay andit yàlla ko yàlla teggi ñi bëggoon a ñëw ca mënuñoo ñëw yàlla nañ bokk tuyaaba juñ fi amee ci barkeb Sëriñ Tuubaa te yàlla nañ ko yàgg def lool yàgg koo taxawu ci barkeb Cheikh Moustapha barkeb Cheikh Ahmadou Mbacké ñi sant ñëpp di gërëm ñëpp wassalaamu aleykum wa rahmatullah sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te faale ko wuy seek farjaki Moustapha su fekkoon da laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Mustafa